Abdoulaye Wade moo gañe woon Abdou Diouf président Macky Sall ñëw gañe euh, Abdoulaye Wade muy deuxième alternance bi nga xam ne moom Sénégal ñu àndoon nekkoon PDS si président Abdoulaye Wade Macky Sall nekkoon si président Abdoulaye Wade Idrissa Seck maanaam famille libérale bi ñëpp ñoo nekkoon mais malheureusement dafa amoon ay division suñu biir président Macky Sall yàlla jox ko nguur bi mais ñun bi ñu dàqee PDS en 2012 ñu créé woon seen suñu benn kuréel bi ñu tuddoon ànd pencoo réew mi lépp lu ñu doon dox di ko wax suba ngoon bi ñu xoolee politique bi fi mu jëm ak li muy laaj dañ benn parti pour mu gagner élection dina jafe donc boole force yi dafa war a jot mais booy boole force da ngay boole ñi nga xam ne yéen a bokk famille bokk gëm-gëm bokk jublukaay ñu si doon dox ak suñu mag suñu xarit Serigne Mboup pendant quatre ans ñu si dox di si wax. te nañ seek Idrissa Seck waxtaan seeg moom tase seeg Pape Diop bokk gis waxtaan seeg moom te seeg ay responsable par exemple wax ñu ne leen ñun lii la ñu gëm gisuñu beneen solution. ba yàlla dogalee aussi mbir mi dem ba nga xam ne maintenant toog nañu ak président Macky Sall parce que bu ngeen xoolee Sénégal la ñu amoon indépendance 1960 1960 socialiste ñuy wax famille Senghor ñoom ñoo yoroon nguur gi pendant ñeent fukki at duñu wax kenn wax defuñu fi dara. mais lépp li nga xam ne mooy symboliser ñoom seen seen liggéey mun nañu wax moo doon pont Sénégal 92 ba la nekkoon Dakar te ñu yàqu ko kon seen gis-gis dafa sorwul mais bi président Macky Sall ñëwee en euh, président Abdoulaye Wade ñëwee d' abord en 2000 2000 président Macky Sall nekk nekkoon si wetam si lañ commencé gis Sénégal di changer bi président Macky Sall toogee aussi Sénégal mu ngi gën a changer parce que aussi booy wax dangay wax dëgg mu ngi changer projet yi mu ngi am si dëkk yi mu ngi dem si àll bi. bu ñu gisee loolu ñu xam ne que ne ñu ngi jëm sa élection yu xaw a doy waar ñu gis ne njaboot ñaari njaboot yi fi am maanaam njabootu Senghor ak njabootu Abdoulaye Wade njabootu Senghor ñu ngi dajaloo di waxtaan seen biir bu ngeen jëlee liste taxawu taxawu Sénégal ñu sax maa ngi koo taxawu nañu wax ne njabootu Senghor ñoo fa nekk kenn lag moo leen rax muy Idrissa Seck nañ si ñëw si biir mais loolu dafa am li nga xam ne ñun dafa tey suñu xel. parce que bu ngeen jàngatee élection yi amoon 2012 Moustapha Niass ak Tanor Dieng dañoo àndoon mais ñu ñu ñu tàkkali ko au dernier moment mais ñoom ñaar Tanor Dieng ak Moustapha Niass bu fekkoon ne tàkkali ko maanaam tasuñu woon en 2012 ñoom ñooy jël pouvoir bi au premier tour ñoo doon gagné élection yi mais ñoom def nañ jàngat boobu jàngat boobu donc gàkku. moo doon dauphin Moustapha Niass Khalifa Sall mooy dauphin Tanor Dieng leneen rëcc 2012 si information ak si ay doxalinam ñu ngi koy jéem a togg pour au moins élection yi ñuy ñëw kenn si ñaar ñooñu bu positionné ak président Macky Sall je pense que lépp luy socialiste dina basculer dem jàppale boobaa nguur gi génn si famille Abdoulaye Wade comme gis nañu loolu te bu fekkee ne xuloo bi dafa continuer tey président Macky Sall ala kulli àll soit jàll premier tour wala bokk si deuxième kooku moom amul werante mais bu fekkee ne moom dafa xuloog njabootam muy waa PDS ak ñi nga xam ne ñooy woo si libéral bu boobaa moom du am ñi nga xam ne ñoo koy jàppale bu boobaa nag je pense que ne li Abdoulaye waxoon ne dama bëgg nguur gi nekk sama loxo pendant 50 ans sama fami bu boobaa mënatul nekk loolu ñun moo taxoo ñuy dox di si wax donc te loolu yëpp mu ngi am si moment bi nga xam ne Sénégal dafa am pétrole ak gaz fa am pétrole ak gaz dañuy wax maanaam malédiction maanaam xam nu ñu koy waxee si wolof euh, natt en quelque sorte bu bu xaw a doy waar Sénégal mais loolu parce que am na pays am pétrole mais malédiction amu fa am na ay dëkk tubaab yu am pétrole malédiction fa problème bi mooy suñu institution yi ñoo faible ñoo amul doole ba pare ay force yu nekk extérieur taxaw pour yëngal pays yi nga xam ne am na nañu alal loolu mooy la réalité boo xoolee Sénégal bi affaire bi commencé da ngeen gis alal bu bari na dugg ci élection yu ñëw ay milliards et milliards am na ñi nga xam ne sax tey pare nañu tey bu ñu gisee ñi nga xam ne tey bu ñu fi dugaloon gànnaay pour tas dëkk bi pour jël nguur pour mun a mettre le pétrole euh, si teg seen loxo dinañ ko def déjà am na lu ngeen commencé am na ñu commencé di bind ay livre di bind livre di wax ay contre-vérité ay affaire yi nga xam ne dara taxawu si ñooñu li ñuy bokk na si ñu nga xam ne ñaaw na njort que ne am na ñu nekk seen ginnaaw pour jaxase xelu Sénégalais donc loolu moo tax ñu wax ne donc loolu dafa war a arrêté. donc loolu moo tax ñoo bu fekkee ne Senghor bi nga xam ne dafa dafa dafa nelaw dafa dee mu ngi si biir bàmmeelam moom di dajale njabootam Ablaye Wade biy dund nag wax dëgg yàlla war na mën a dajale njabootam parce que Ablaye Wade ak Senghor bi ñuy dund. Ablaye Wade moo fexe woon ba Senghor bàyyi nguur gi daw bàyyi ko fi kon Senghor mënul dee nekk si biir bàmmeelam di dajale njabootam Ablaye Wade di dudd njabootam di tas disons ko loolu du du yoon. donc loolu moo tax bi ñu waxtaanee ak Idrissa Seck wax naa ko sànq si li nga xam ne ñun la ñu bëggoon parce que élection locale ñu àndoon lii ma leen wax laa ko wax kii seddale si parce que lépp yëg na ko mais bi ñu laajee Idrissa Seck ne kon njabootu Ablaye Wade bi bu ñu àndee kan moo ko war a jiite. parce que xam nga Idrissa Seck ñëpp xam nañu comportement am suy bëri mais bi ñu ko laajee moom Idrissa Seck moo ma tontu gémmiñam sama nopp mu ne ma Macky Sall moo ko war a jiite moom Idrissa Seck kon d' na famille libérale bi tase pour Macky Sall jiite ko ñu nekkoon si ay waxtaan mais mujj gi aussi mu mel ni ku jël yeneen initiative dem ànd fekk de croix def coalition coalition ba yàggul mu dem ànd ak Moubarak Lo def coalition coalition ba yàggul mu dem ànd ak Khalifa Sall def xaw ma coalition ba Khalifa Sall ba mu fa ba mu faloon ne ko fii la ànd bi yem mu toog. mu jékki-jékki xas fi Karim Wade tagg fi Karim Wade xas fi Ablaye Wade tagg fi Ablaye Wade tey mu ñëwati dem ànd ak njabootu Senghor kon dañ ne waa ji xamul lu mu bëgg franchement xamul lu mu bëgg te li ma wax ak yàlla rek moo tax te kenn mënu ko weddi parce que ay fee yu koy wane. donc loolu moo tax ñun bi yàlla defee ñu tase ak président Macky Sall parce que tase nañu ñu bari say responsable moom ak Abdoulaye Wade la ñu tasewul woon Abdoulaye nekk foon président Macky Sall mu ngi xëy na gis ko yombul. bi yàlla dogalee moom mu wooluñu ba ñu ñëw toog waxtaan ñu déglu ko ñu wax ko ñun suñu xalaat parce que ñu bari dana wax naan non Macky Sall président Macky Sall euh, buggul loolu wala nangam nangam mais boo ko dégloo nga toog moom da nga xam ne ku fonk Abdoulaye Wade la ku koy respecté la ku koy yéen a jàmm te ku bëgg nag njabootam daje loolu moom lu ñor la lu ko ñor la ça c'est ba ñu amee assurance boobu nag la ñuy jóg ñun tamit ñëw Thiès wax ak ñi ñu war waxal commune bi ak ci département bi c'est vrai que temps bi xam na pour au moins ñu taxaw taxawal ñun suñu suñu coalition bopp coalition bi ñu tuddee juboo jëriñ Sénégal parce que dañoo gëm ne njaboot libéral bu ñu juboowee Abdoulaye Wade ak Macky Sall juboo parce que loolu en aussi moom la Sénégal yoo xooleen campagne bi ñoo ñoo fi mobiliser Macky président Macky Sall Abdoulaye Wade kon Sénégal seen bopp ñoom ñoo wax ni pour ñoom ñaar dañoo war a juboo ànd kon ñun loolu la ñu te loolu la ñu gëm moo tax ñu aussi juboo boobu aussi nag wax dëgg si la bokk mënoo nga ne nag da ngay da ngay juboo ba pare nga ne. ki nga xam ne yàlla dogal na moo toog si nguur gi muy président Macky Sall nga ne dañu dem élection pour wàccee ko wala pour mu am jafe-jafe bu boobaa waxtaan bi du yomb wax dëgg yàlla moo tax ñu ne kon soxla na fu mu wéeru maanaam majorité assemblée bu mu wéeru moo tax ñun ñu ne dinañ ko jàppale si législative yi si kattanu yàlla nañ si dox nañ si wax nañ si yëngatu pour au moins ma majorité bu mu wéeru parce que fii ba 2019 moom la yàlla dogal mu nekk fii bu boobaa xelam dal ñu eggali waxtaan waxuñu maanaam yeneen socialiste bu ñu si dugg on pas dit ça parce que réew soxla na ay yeneen bras mais li nga xam ne mooy yoonu politique pour éviter piège loxo bi nguur gi génn si loxo njaboot Abdoulaye Wade mooy famille Abdoulaye Wade dañoo war a ànd loolu moo tax ñu jóg teg kuréel bi ñu koy wax a xam na xam nga Sénégal moom la wax rek ñu ne xam naa certainement président Macky Sall moo leen jox xaalis wala moo leen dig dañoo nekkoon di liggéey si ay mbir ak suñu partenaire parce que bu fekkee boo woowee nit mu jóg bu sonnee bu yow bu amee problème mu ñëw taxaw foo ko woo mu wuy la wax dëgg yàlla danga war a xalaat ay moyens pour taxawu ko bi ñu gisee nit ñi xaw a am ay jafe-jafe ñëpp la te ku am problème dangay dem si doomu aadama waxu ko souvent du ko faj mu xamal la wala mu génn weer la donc ñu ne dañuy créer benn su benn benn kuréel bu ñuy wax Thiès solution. Thiès solution macha allah ñu ngi si dafa am ay discussion pour juridique pour xool aspect juridique bi ak yenn li ko tax a jóg lenn la rek. képp ku amati problème yi nga xam ne da ngay dem si nit di ko wax maanaam nga am war a fay courant yorotoo yorogoo xaalis bi nga war a fay ndox yorogoo xaalis bi nga am ordonnance mënoo ko jënd sa doom nga war ko fayal mënoo ko wala sa dund jeex munoo ko wala nga bëgg dem tey ba war a ngénte borom kër yi am problème mu kii du ñu joxe xaalis nag li ñu joxe mooy la nga soxla muy matériel lu ñu doon loolu lañ lay jëndal tegal la maintenant ñu waxtaan ni ngay fayee parce que lu ñu maye waxtaan nag foofu dëggu parce que loolu bu fekkee ne gestion bi baaxul rek. affaire bi du sori il faut kenn ku nekk la nga bëgg boo ko def boo fekkee ne si benn weer ñaari weer ñetti weer ñeenti weer juróom weer juróom-benn ku mën nga waxtaan ko ba mu clair bu boobaa je pense que ne bu ñu si déggoo du am problème donc kuréel boobu fas nañ ko taxawal fii Thiès incha allah pour accompagner population yi accompagner Thiès waay donc si gàttal daal loolu moo taxoon ñu woo leen tey def point de presse bi maa ngi leen gërëm di leen sax. Allah bi mu ak ñi mu àndal. te Ablaye Dramé moom ngeen xam Thiès sa dëkk mais man xam naa ci dara am na ay député yu jëkk faneen am na ay anciens sénateurs yu dëkk faneen am na ay leaders yu PDS yu dëkk faneen ci Sénégal am na sax ñu musul politique ñu gis ni démarche bi bi mu def moo baax ñoom ñoo ànd ne bala dañu bëgg réew mi jëm kanam parce que dañ bokk njaboot bokk géeño goo xam ne moo ñu jur géeño googu président Wade moo ko nekkoon ñu bëri ci ñun moo ñu dugal ci politique mu liggéey fi lu bëri na waaw ñu rafetlu ko lool di ko ñaanal ah mu am fan wu gudd ak wér waaye ku dund di liggéey danga nga bëgg say doom donn la moom tax jëlul ndonoom ni damay tànn kenn jox ko ko daf ni sama ndone dama koy téye yéen ñëpp ngeen ñëw ku ma ci gis ni yaa ko mérité voilà les règles règle yi mu tegal nag mooy compétition Sénégal yëpp d'accord ci en tout cas li ma mën ma jox la ko mais ba ñu dajee doomam yëpp mënoon ko laaj bëri na ci waaye ñu ñu ci gën a ràññee mooy Macky sal ndax nekkoon na premier ministre Idriss Seck président Pape Diop nekkoon na Sénat de ne mën nañ ko wax wala sax Karim Wade parce que am na ñu koy wax bëggu ko mais bi ñu tasee mu def compétition yàlla mi nga xam ne mooy buur mooy tànn te moo xam li gën ci ñun mu ne damay dindi ñëpp. bàyyi bàyyi beeg doom ji ñu xëccoo mbir mi buñ ko xëccoo mu am ci jaar ci yoon rafet lool nag président wadd am ci taxawaay bu mucc ayib boo xam ni mel na ni bi président Abdou Diouf meloon ci moom président Macky Sall jël ko Kajoor nag su bàyyi demee bàyyi geñoo ak doom njaboot gi dafa war a ànd topp ci ginnaaw loolu mooy yoon amatul intérêt xool sama bopp parce que bu ko nekk bëggee gis sa bopp du ñu dem li am solo mooy dëkk bi dem Thiès. dafa bokk ci dëkk yi ëpp solo Sénégal ci histoire ci fa bokk ci dëkk yi ëpp solo Sénégal ci position stratégique am dafa bokk dëkk yi ëpp doole ci Sénégal ci koom-koom yi nekk ci région bi ci wàllu électricité wax naa ni li nekk département Tivaouane ci central après Ndakaaru Thiès moo ëpp courant bu muy produire wax naa li nekk ci mine yi gis ngeen zircon bi gis ngeen phosphate yi gis ngeen leneen ak leneen gis ngeen mbay mi gis ngeen napp gi gis ngeen tourisme bi alors loolu yëpp Thiès man dama foog ni cees warul la taxaw rek ni man damay toog ku falu rek ma xeex comme ça doo fi def dara boo jàllee sama rob ñëw ma xeexaat ko mais loolu du politique loolu jaaduwul Thiès dafa war a taxaw président bu falu daw ñëw cees ni naa fa def loo xam ne waa Thiès nañ xam ne Thiès bokk na ci réew loolu mooy histoire u Thiès loolu moo méngoog Thiès loolu moo tolloog Thiès kon dañu bëgg aussi nit ñi di ràññee ràññee bi mooy loolu depuis Ousmane ngoom maire Thiès ak li mu fi liggéeyal ñu koy nuyu di nuyu njabootam mais di ko ziare di nuyu njabootam plutôt président wadd moo fi indi chantier de Thiès chantier de Thiès ñëpp xam na coow li ci am ak ni mu demee waaye tey li fi nekk chantier yi yëpp a ngi àgg loolu laa gis waaye li ma gis mooy aéroport léegi mu ubbi Thiès la bokk li ma gis des na ay weer yu néew balaa at mee jeex da ngay jóge Ndakaaru dugg autoroute continuer jaar autoroute benn dëkk rek ko am Sénégal muy Thiès raay bi nga xam ne mooy xolu Thiès mi ngi dellu si raay bi dellu si na TER bi mi ngi ñëw très grand écartement bi jëm Tamba Kédougou Bakel donc ana usine bi nekkoon fii doon def tissu tëjoon na bañ fàtte ko ubbi na université Thiès amoon na xel loolu ñu ubbi ko décentralisé waaye amuloon infrastructure ña ngi koy tabax institut d'enseignement professionnel bi nekk yoonu Tivaouane bu bees la bokk école yi fi newoon cees mooy deuxième ville université Sénégal kon nag ndaw cees yi boo leen xoolee ëpp nañu euh, pratiquement 65 pour cent population comme ci Sénégal ak Afrique yëpp d'ailleurs mais perspective yooyu dañ nga war a juddu Thiès màggee Thiès jàngee Thiès liggéey Thiès di dem Dakar rek boo amee soxla mais waratoo ñoxal njaay ñëpp dem mais loolu pour mu am il faut que doomu Cees yi takku ànd xam li ñu bëgg xam seen bopp am seen fula ak seen fayda ràññee xool fi intérêt ne président Macky Sall falu na yàlla moo ko def 2019 lay jeexal jël na engagement fii defe naa wane na ni mi ngi ci yoon am na yéene ci réew mi yéene jooju romb na moom mandat yi nga xam ne mën na ko am parce que boo waxee Sénégal émergent deux mille trente cinq ñëpp xam na ni deux mille vingt quatre moo fi nekk bu deux mille dix neuf ñëwee deux mille vingt quatre bu faluwaatee dafay jeexal kon kooku yéeneem romb na sax nguur yi mu mën a am parce que li ñu daan gis ku ñu fal nga def programme mu cinq ans ci sa mandat wala ñetti at ñaari yoon te loolu gis nañ ni mënuñu sori kon dañu war a ànd nekk benn ngay wax damay réunir famille Ablaye Wade loolu moom waruñu ko sax wax wax naa ni Ablaye Wade ni mu fi jógee ñi ànd moom dañ ci war a topp. Euh, bokk ci continuer liggéeyam bu dee dëgg la ci ñoom mais Macky Sall dafa raw yamul sax foofu dafa woos Sénégal yëpp képp ku réew mi ñor na nga ñëw man doomu Thiès yi ma gis tey ñuy dugg ci di jàpp sax ñu ci ëpp daawuñu politique te politique uñu parce que politique aussi du dugg ci parti politique amal njariñ sa gox la man wax naa presse bi ni ñuy liggéeyee dëkkuñu fi rek affecté wuñu leen fi rek dañu bokk ci askan wi bokk ci mbokk yi lu xew lu baax ñu wax ko lu jëmale dëkk bi ñu wax ko am na doomu Thiès yu ko yàgg a def problème bi mooy ñu def seen synergie dellu si loolu man loolu laa gis Thiès nag dafa war a taxaw dem nee naa léegi Macky Sall dimension romb na famille Ablaye Wade parce que même Senghor mi ngay wax Senghor ñëpp xam na ni buggoon na réew mi nekk na maire Thiès nekk na ci région bi nekk suñu fierté àddina foo dem ñu tudd la Senghor waaye ñi représenté Senghor dëgg dëgg dëgg ci Sénégal ñooñu sax ñëw nañu fekk si ko parce que boo jëlee Ousmane Tanor Dieng moo fi fuutu woon Abdou Diouf président Abdou Diouf bu mu àndal tey président Macky Sall àndul ak moom pour wut dafa xam ne mi ngi def mu koy jàppale président Moustapha Niass kenn waxatu ko ah boo jëlee ministre Robert Sagna Casamance xam nañu Robert Sagna tekki nga jël Abdoulaye Makhtar Diop ca Ndakaaru ak Mamadou Diop surtout Touré ca booru bële kon ndegami jàmbur ci ning ko waxee ci politique ñoo ñëw gis ni xale bi mooy avenir kon ñun ñi bokk ak moom bàyyi ànd ak moom nag compagnonnage kenn waratul wax suñu diggante kon Thiès waratul toog di xaar parce que ñun ñëpp cees lañ dëkk nag ku ne am na fi mbokk Thiès Thièsu Sénégal la nañu bàyyi kii te ñëw te bàyyi suñu intérêt personnel ñi fi nekk di xastee ko waxte loolu bu leen kenn tontu nañu continuer woorte ni ko président defee coalition benn Bokk Yaakaar la ngeen bokk ci liggéey pour cees jëm kanam d'accord naa ci encourager xalaat bi nga wax mu di cees solution parce que nag bu dee dañuy politique rek bëgg a toog aussi lu ñëw ñu ni état état duñu ci génn il faut que ñun ku nekk sa dëkk ña fa dëkk toog xool seen i problème ku leen gën a xam problème Thiès yéen ñu fi dëkk di dem marché di gis jigéen ñi root di gis insécurité bi di dégg ñi am ordonnance mënuñu ko fay di am ñi am problème mu dund di gis jafe-jafe yi ngeen dajaloo xalaat te cees am na compétence yooyu nag ci parti yëpp et ñi ci ëpp sax ay parti bu ngeen dajaloo xalaat def ay solution yoo xam ni day méngoo ak politique publique yi nekk ci kaw loolu moo tax bu dajee Thiès mën a soxaliku Thiès mën a jóg en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm di la li suñu cofeel ak suñu engagement ànd ak yow dem di leen rassurer que lii mu wax président de la république moo ko sàkku moo ko sàkku pour gis leen ñoom dégg na li ñuy def moo ko sàkku pour xam euh, ni soxla na Sénégal yëpp dajaloo moo ko sakku pour dajale njaboot gi te bu ñu génnee fii danañ ko woo wax ko lu ñu fi gis wax ko lu ñu xam wax ko seen détermination ak seen engagement yow ak ñu dëkk Thiès ak ñu dëkk département Thiès pour que li ngeen war a am ci jàppale pour population Thiès ñu jàppale leen pour que mission bi ngeen am ngeen mën ko am en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm ñu fi nekk ñëpp. mënuñu fàtte comme ni ma ko waxee waa presse bi di leen gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala